mbokk julli gën a sante yàlla sunu borom subhanahu wa taala julli ci yonent sallallahu alayhi wa sallam di seede ne yàlla rekk yàlla muhammad dawal yàlla la mbokk julli li li ñi wax ko kóolute wala responsabilité mbir mu mag la waye waccu wayam ci diine lu mag la lu kawe la kon war na ci jaami yàlla yi ñu sam lan moy responsabilite deug deug sam jox ko akam waye ñu xam waccu way bi mu am waaye ñu sonn ca dëgg-dëgg coono jox ko yitte ju mag ndax bari na ay aaya yu jóge ci alquran di ko tegtal ak wax yu def salaa salaam ci màggaayu responsabilité waaye ak yëkkatiku mbiram ak dayom fam toll loo xam day toftale day tegaloo ci lu jëm ci àddina ak àlaaxira sunu boroom di wax ne yàlla digal na leen ngeen di joxe responsabilité yi ci seeni boroom te bu ngeen di ñaar ngeen àtt ci maanute muy déglu ñaari wàll yépp te àtt ci dëgg sunu borom wax ne gaaral naa responsabilité ci asamaan ak suuf ak montagne yi ñépp gàntal ne mënuñ ko yenu doom aadama ne sun borom attan naa ko doom aadama bu réeree loola nag moom ab tooñkat la bu sàgganee responsabilité booba mu ngi toñ boppam mi ngi tooñ yàlla waaye ku la mbokki julli sun borom waxaat feneen kenn ci doomi yonent yee doon wax ak waajuram ne ko na nga ko jël ab liggéeykat ndax ki gën ci ki ñuy jël ab liggéeykat mooy ki man la muy def te ku ki nekk ku wóor da nekk responsable di leen di Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu mun jëli jun sada mu wax ne mandarga yi ñuy xamee am naa fex ñett la bi ci njëkk mooy bu nit ki waxee wax lu dul dëgg beneen bi bu diggee wor lam digge woon du ko def beneen bi buñ koy responsabilité mu wor te lañ ko responsabilité abdoulahi mabas waxaat ne jamono yun sam toogee ci benn jotaay di waxtaan ak nit ñi benn ku jóge ca àll ba daa ñëw di ko laaj ne ko kañ la bés ci taxaw yunte wéel waxtaanam ba noppi ca waxtaanoo ne ko ana ki doon laaj te bés mu ne ko maa ngi ni yow mu yàlla yónni mu ne ko saa yu ñu sànkee responsabilité na nga xam ne bés mi ngi bëgg a ñëw mu ne ko nan lañ koy sànkee mu ne ko saa yuñ joxee mbir koo xam ne waru koo yore buñ dénkee mbir ku ku ko war fa yore bu boobaa xamal ne bu jëg bés penc mi ngi ñëw sunu boroom moo ñu wax ne yéen ñi gëm yàlla bu leen wor yàlla bu leen wor yonent bi bu leen wor responsabilité yi dox seen diggante da ngeen xam ko kon mbokk yi aaya boobu day tegtale ne tegtale gu wóor ne responsabilité ñetti xaaj la sa diggante sa boroom moom moo la bind ngir nga topp ko moo la amal ngir nga jaamu ko moo la digal moo la tere waaye bindu la ngir caaxaan daf laa bind ngir ab jubluwaay bu am solo waaye objectif bu jub mooy lan nga jaamu ko moom sunu boroom beneen bi mooy rasulallah bi dox sa diggante yonent bi te bokk na ca mooy nga bëgg ko jiital bëgg ak yonent saasam ci mboolem gépp bëgg na la gënal sa bakkan na la gënal sa doom na la gënal say na la gënal ni ne kenn ci yéen ngëm am du mat lu ne dama ko gënal boppam gënal ko waajuram gënal koy doomam gënal ko nit ñëpp sëriñ Tuubaa daal di wax ne bëgg gi ma bëgg ku ñu tànnkat di salaasalaam moo far mbëggeelu bépp lépp loo xam ne indi bànneex ci bakkan wala njaboot wala doom mbokk jullit yi nañu xam ne responsabilité bi dox suñ diggante ñun nit ñi bokk na ca sa digganteeg sa ñaari waajur la ca am la ca war ci topp seen ndigal daw seeni tere sa digganteeg sa njaboot mooy sàmm leen yar leen saxal leen ti jaamu yàlla sa diggante say dëkkandoo nga def ci lu rafet sàmm ca kàddu ya ak jëf ya waaye ñi nga xam ne ay liggéeykat lañ la leen war ca seen liggéey ñi nga xam ne ay jàngalekat lañ la leen war ca seen liggéey ñoom ñëpp sunu borom da leen a jox responsabilité te ëllëg sunu borom dana leen ko laaj kenn ku nekk lam la dénkoon yun sa waxoon ne kenn ku nekk ci yéen ab sàmm la te ël kenn ku nekk ci yéen responsable la te dees na ko laaj la ko suñ borom dénkoon mbokk julli kon na xam ne responsabilité responsable bu rëy la warte bu màgg la waaye lu dox sa diggante ak yàlla lu dox sa diggante yonent bi lu dox sa diggante ak jaam yàlla yi mbokk ji nañu bàyyi xel yàlla nañu ragal yàlla nañu jox amaana mooy kóolute responsabilité dëgg-dëgg ak xam nañu ko nangoo yenul sunu bopp mbokk ji li nañu xam ne sunu boroom danañu laaj ëllëg bu ñu taxawee ci kanamam bu ñuy gaaral jëfi jaam yépp ci kanam suñu borom ndax alxuraan moo ñu wax ne bes ba nga xam danañ gaaral sunu borom lépp lu jaam bi doon def nga xam ne dara dootu nëbbatu mbokk ji nañ bàyyi xel nañu ne képp koo taxaw nga ci la war am na njariñ yu bëree bëri bokk na ca mooy ne loolu day wane ne ngëm nit ki ngëm yàlla mat na day wane ne lislaamam rafet na kon ci responsabilité amaana ci lañ mën a sàmmee ci lañ mën a nit ñi ci lañ mën a sàmmee alali nit ñi ci lañ mën a sàmmee yarami nit ñi ci lañ mën a sàmmee bakkani nit ñi ci lañ mën a sàmmee mboolem xeeti xam-xam yi waaye ci lañ mën a sàmmee képp koo xam ne kilifa nga moo xam borom kër nga moo xam directeur nga moo xam sëriñ nga moo xam koo mën a doon njiit mu réew nga wala loo mën a doon la nga jiite na nga koy sàmmee mi ngi tege ci responsabilité bi nga sàmm bi la suñu boroom dénk mbokk jullit yi ci àtte yi ci amaana ci responsabilité lañ mën a atte atte bu jub mbokk ji lañu xam ne ki nga xam ne day wóor na nekk na ci la ko suñ boroom digal la mu ko sant suñu boroom dana ko bëgg nit ñi dañ ko bëgg bokk na ci melokaan yi nga xam ne melokaan jikko la yu suñu boroom melal jaamam yi nga xam ne gëm nañ ko mooy ñi nga xam ne day lay seen amaana lay seen responsabilité ak la ñu dëxalante dañ ko sàmm te bépp société boo xam ne mooy sàmm responsabilité dana fa tasaaroo day nek societe bi ak barke yalla sun borom boole djubal الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من استفى عباد الله أمانة بحقوق الناس حق الوالدين حق الأبناء حق الجيران حق التجار والموصفون والمعلمون مؤتمنون والله تعالى سائل كلا ما اعتمنه وفي الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أيها المسلمون إنما الأمانة مسؤولية عظيمة وواجب كبير أمانة الله ورسوله وعباد الله فاتقوا الله عباد الله واعطوا الأمانة حقها وتحملوا هذه المسؤولية العظيمة واعلموا أن الله سائلكم بها حين تقفون بين يديه عين العرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية عباد الله اتقوا الله واعلموا أن القيام بالأمانة له فوائد منها أنها من كمال الإيمان وحسن الإسلام وبالأمانة يحفظ الدين والأعراض والأموال والأجسام والأرواح والمعارف والعلوم والولاية والوصاية والشهادة والقضاء والكتابة ومنها أن الأمين يحبه الله والناس ومن أعظم صفات الخلقية التي وصف الله بها عباده المؤمنون والذين هم لأمانات وعدم راعون والمجتمع الذي تفسو فيه الأمانة مجتمع خير وبركة نسأل الله أن يجعلنا لمن يحملون الأمانة حق حملها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وخلنا عذاب نار والتف بنا وخونا وكلنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصل على النبي وسلم واقضي بهذه كل مسلم استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين